yow prévoiroo euh, liggéey avec un candidat de Benno non non xam nga comme j'ai dit le le le Benno man euh, de su ma xesee tourner une page en fait je la tourne non tout ma tous ceux qui me connaissent. nee nañ damaa dëgër donc da nga les les les amarres damaa dëgër boobu non non j'ai gardé de très bonnes relations c'est sûr sur le plan politique laa décidé parce que je dama la expliqué tout à l'heure que kii taxoon ma ñëw pour dugg Benno ak APR d'ailleurs j'ai jamais été membre ni du SEN ni du des trucs exécutifs ah j'ai jamais été à ce niveau là mais ki taxoon ma ñëw euh, Sénégal dugg Benno ak APR en fait c'est le PR c'est le président voilà bien sûr c'est pas Abdou Mbow c'est pas Abdou Mbow moo la booleeg Macky Sall non non non non non pas du tout c'est le c'est président la la moo tax ma ñibbisi non mais je veux dire bi ngi à Abidjan quand vous avez rencontré le père c'est pas Abdou Mbow qui a joué non, non, pas au, du tout. aux bons offices pas, pas du tout pas du tout mais xam nga Abdou Mbow mais bien sûr que je le connais je le connais mais pas du tout mais je veux dire nañ revenir sur ce que mooy que kooku su ñëwee maintenant bay dem en fait c'est ça qui fait que pour man ma mission est terminée à ce niveau là kenn du ma joxoñ kenn man maay tànnal kan lay kan lan lay def kenn du ma naan kenn du ma doon en ce que je veux faire mooy comme à partir du moment ah où man nga ne kenn du la wax. kan laa war a topp kan nga war a topp. voilà c'est ça. mais vous avez rencontré Amadou et il semble que vous avez donné euh, votre parole. ah bon alors j'ai jamais donné ma parole à oui, qui j'ai rencontré tous les cadres. gis nga vous j'ai rencontré de vous ranger derrière lui. alors j'ai jamais fait ça de ma vie. j'ai rencontre tous les candidats muy Amadou muy Ali muy on, on parle tout on se parle j'ai téléphoné à Boun tous les dix candidats on se en réalité ouais, mais, mais, ouais, mais, mais, ouais, mais je, je parle pas de, de d'échange comme ça vous avez rencontré Amadou Ba vous avez discuté politique et vous vous êtes engagé à vous ranger derrière alors lui. que ce n'est pas du tout vrai am ni Amadou Ba ni keneen ku la ko wax ce n'est pas vrai en fait vous ne connaissez pas en réalité. non je, je veux dire vous n'avez pas rencontré Amadou Ba. si si j'ai rencontré j'ai euh, j'ai rencontré Ali j'ai rencontré je parle avec tout le monde. et parce vous n'avez pas, prévu de vous ranger derrière lui. pourquoi je devrais le faire. et vous le ferez jamais. et je ne le ferai pas du tout. pourquoi je devrais le faire. xam okay. nga je vous ai dit euh, man euh, les critères yi ma am il faut les comprendre euh, cinq critères ma la tegal. pour man ki war a diriger l'état du Sénégal dafa am lu mu la war a ëppale sur ce plan là. et donc euh, yow en fait je juste nga évacuer loolu ah critères yi nga jàpp Amadou Ba amul critère yi. non non non critères yi ma jàpp mooy y' a aucun des candidats bi mu ëppale loolu. non mais je veux dire Amadou Ba. bi nga xam ne non ah, non Ba bi nga xam ne vous vous êtes parlé. donc yow mënoo ko jàppale parce que remplirul critères yooyu ëppalewu la ko te yow xalaatoo dem ànd ak moom non du ma xa du ma ànd ak aucun des cinq candidats aujourd'hui okay, des dix candidats voilà parce que pour man euh, dans la vie politique ku nekk da nga war a ànd ak seen chemin maintenant su fekkee ne da ngeen dem jusqu'au deuxième tour c'est différent parce que ku nekk da nga war a dem maintenant seet lan ngay peser est-ce que yow euh, tu vas avoir 2 pour cent des voix 10 pour cent des voix 20 pour cent des voix loolu dafa am importance ci politique. tant premier tour moom xalaatoo ànd ak moom wala wala keneen ci APR. no non pour pour man premier tour damay demal sama bokk comme j'ai dit maintenant je je suis ouvert à d'autres alliances on ne sait pas du tout kan ak kan lay àndal parce que aujourd'hui aussi il faut reconnaître que su fekkee am ñoo xam ne yéen a bokk ay idées ak ay idéaux yéen a mën a def des choses ensemble euh, xëy na ils vont te rejoindre mais man. ce que j'ai décidé mooy demal demal sa mbéy maintenant ku ñëw soutenir ma dans cette marche là et cetera d'ailleurs quand je discute avec les gens sax kenn ñu mu wax ci pour me soutenir en général kenn y a aucun candidat ma toog ak nga may naan dem da may jàppale parce que demand vais yow nga jàppale ma parce que xam nga euh, su à partir moment où nga wóolu sa bopp gis na yow euh, en réalité sur le plan politique ces gens ils n'ont pas gagné plus que toi yow ci es élu maire je suis de, de, depuis gagné na gagné na gagnéwaat nekkaat président euh, nekkaat conseil départemental gagné gagnéwaat donc sur ce plan purement politique pourquoi tu devrais suivre quelqu'un su fekkee wàllu expérience la même chose ça fait dix ans douze ans que je suis dedans je vous ai parlé de mon expérience antérieure en politique donc finalement nit su fekkee da nga bëgg avancer il faut nga am fit et aussi xam fan nga bëgg a jëm ensuite il faut surtout nga bañ a toog ne euh, euh, bañ a suivre ay influence parce que telle ou telle personne c'est celui peut-être voilà effectivement